à la Médina, rue 29, angle Blessiagne, s'est présenté à la brigade territoriale de Anne. Il déclare être le petit frère de Amoud Diallo, immigré établi en Espagne, père des victimes de l'incendie criminel du bus de Anne. Alors, euh, le 3 août, taille, je pense que c'était le 3 août, euh, taille c'est 15 heures euh, le qui que moo momoudou Mamadou Yero Diallo De que Fana xam ne Médina rue 29 angle Blaise alors dem Fana nga xam de Han. Anne mu jàpp nii moom mooy li nga xam ne moo di raqu Amadou Diallo bi na xam ni itam immigré la fan xam ni itam mooy sànni ko France Espagne kon fii Sénégal pour daal fay vacances ni bokk na ñenn ñi nga xam ni itam ñàkk nañ seen ko bakkan donc list bi. Mhm. bokk na si ki na xam ne que moo di Fatoumata Bintu Diallo ay atam nag vingt et la daal di am moom di euh, doom si ki na xam ne que moo di Amadou ak ki nga xam ne que moo di euh, Siraba moo daal di dëkk fa nga xam ne itam mooy zaanu ko Médina moom moo daal di des si bus ak ki xam ne que moo di Oumou Koultumi Diallo am.

Euh, pour dem fa nga xam ne it ko euh, alors euh, moom ki nga xamne que Fatoumata Bintou Diallo mu daal wo woo xaritam di ki nga xamne ne que moo Aïcha Diallo nit ko xamle que ni quitté li nga xamne que kunun maa ngi dem fa nga xam te bus ligne 65 l'a dadi di jël alors ba mu yegsee nag fa nga xam ne ko boobu la ko dadi wo elle avait même précisé qu'elle serait à la maison dans les 30 minutes qui suivent comme woowoon. Euh, ni ko euh, fii 30 minutes na yegg fa nga xam ne itam mooy zaanu ko Colobane à l'issue la famille a appris qu'un bus en provenance de Kounoun a été incendié à hauteur de Yarar et que deux personnes seraient mortes à l'intérieur après cela leen di comprendre que ni euh, effectivement que ni ñom ñaar ñoo si des mujj daal di egg fa nga xam ne itam mooy zaanu Colobane waaye ni itam si saa si li nga xam que modi les corps sans vie si daanu hôpital dal jam Guèye walen leen di acheminer donc ñu don daal di laaj li nga xam que modi où sont les victimes et les morts c'est ay famille ñëw déclaré que ni euh, bokk na si que nous euh, Fatoumata Bintou Diallo ak ki nga que moo Oumou Diallo ñoom ñoo daal di ñàkk seen de bus. waaw donc euh, je pense que aujourd'hui peut-être mbir bi mi ngi jël tournure. Mm. parce qu'il était important encore une fois que ñi nga xam ne tey mm. jii am nañ si ay gaañu gaañu. ñi mm. nga xam ne nañ nous bakken. famille yi wax. bon peut-être que ça a pris du temps mais le plus important encore une fois nos autorités doivent prendre leurs responsabilités et veiller encore une fois à la sécurité des personnes et des biens mm. déjà il y a des problèmes si nos frontières mm on ne va pas rentrer encore une fois dans le cas de Juan Branco. Mm, bi nga sax si après xam naa il faut que nous appesantions wu bu mm. parce qu'il y a des choses yoo euh, il faut que nous leeral à mm. peut-être beaucoup de personnes yi nga euh, comprendre parce que tamit euh, li xewoon yaraax ñu bëri da nga li nga que justement les morts fantômes et les blessés fantômes tey gis naa sax ay tribune enquête aussi def na enquête euh, par rapport à wàllu wënu mel ñu bëri da nga tuddee li nga xam que modi est ay morts et des blessés li nga que modi fantôme donc peut-être tey jii n'at naat day euh, réconforter li nga que modi di thèse du ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome. waaw mais euh, pour le moment dal comme si tu l'as bien dit. Hmm. je pense que ki nga xam ne moom lañ mon gën gis le chauffeur mon rek mon moo Genoa. wax mais vu que vous mu ni encore une fois famille victime ni ngi commencé ni mm. ngi génn di wax encore une fois mm. donc yooyu day nekk ay une preuve yoo xam ne dafay teguwaat ci kaw table bi mm. et que aussi on s'attend encore une fois ni nga xam ne ñoom nee nañu seen ay ñooñ wala seen ay frères ñi ñaax nañ ci seen bakken ñu genn sur la toile encore une fois gëna def ay éclaircisation yu gëna a leer Fall alors euh, yu gëna a leer donc chers téléspectateurs loolu moo ñu daal di dàpp euh, si suñu li nga xamé nekk modi euh, plateau Mm, bu seen euh, émission li nga xam ne que moo di soir sur cinq donc euh, ki nga xam ne que moo di Fatoumata Binta Diallo mm, ñu euh, gën ko xamee si ki nga xam ne que moo di Aïcha Diallo nag ak ki nga xam ne que moo di Fatoumata Bintu Diallo ak justement am na seen tur yi dafa nuroo nag ak Oumou Kaltoumi Diallo ñu daal di bokk li na xam ne que moo di peut-être nay ak bàyyi mm. ñoom ñoo daal di ñàkk seen ko bakkan si boobu de li nga xam ne que moo di bi na xam ni itam waxoon nañ que ñaari daam ñoo si daal ñàkk seenu ko bakkan naka noonu ak leen daal di acheminé euh, fa nga xam de itam mooy daanu euh, euh, dalal jàmm donc loolu leen mën a pour le moment jëm si boobu di nga xam ne moo di situation bi nga xam ne de plus en plus mi ngi daal di prévaut mais Mamour est-ce que mhm. aujourd'hui la situation elle est maîtrisée ba tey jii il est vingt une heure on est jeudi jàpp ngeen la situation elle est maîtrisée pour le moment mais je pense que si aujourd'hui il y a de tels actes fallo hum, hum famille ñi nga xamné ñom ñoom ñoo si ñàkk war nañu génn effectivement lu mu gëna a gaaw gaaw gaaw tamit ñom joxé sen cadeau concernant cette situation là mais ben mbir mënul am ñu tok presque maintenant lan 72 heures ñen ñi di commencer di génn di hmm. wax c'est-à-dire les responsabilités sont partagées hmm. concernant cette affaire là il y avait eu un grand polémique ci li nga xam ne moom mooy mbirum attentat bi nga xam ne tey jii suñu autorité yi ñu ngi koy wax. Hmm. donc tey jii maa ngi la koy wax encore une fois c' est en train de prendre une autre tournure parce qu'on nous parle que ñi nga xam ne ñoom ñàkk nañ si dem nañu affiché wu et ñi ngi commencé di génn. di wax. Hmm. mais ci wàllu boobu noonu yaa ngi koy wax concernant la sécurité y' a un avocat boo xam ne dafa jógee dëkkam dugg suñu biir dëkk. fan la jaar mu nekkoon un persona non grata mais fan la est-ce que Taïdi, sécurité bi nga xam ne ngi koy si bi hmm. c'est-à-dire aujourd'hui les forces de défense et de sécurité certains te diront que ils sont déployés seulement pour un fait hmm. c'est-à-dire barricade Ousmane Sonko wala su Ousmane Sonko waré dem du tribunal on les voit partout dans Dakar wala su féké que Taïdi, Ousmane Sonko il doit être dans les liens de la détention foofu lañ leen gissé et pendant ce temps cette population là et n'est pas en sécurité ñaata yoon noté scènes de violence et hmm. ay scènes y a des secteurs yoo xam ne fàllu soo fa ñi fitu à une hmm. certaine heure hmm. parce qu'il y a des agressions parce qu'il y a des vols ak des actes qui un peu partout et ce débat là est en train de durer depuis combien de temps moo manel aujourd'hui je pense qu'il faut aller vers l'essentiel on est en train de parler d'insécurité mais nous nañuy gis ay patrouille muy hmm. on est en train de parler d'insécurité il yenn zone yi nañ dem encore une fois di xool il y a la sécurité hmm. man amna naa ay mbokk zone de captage à une certaine heure ils n'osent pas sortir hmm. parce que amna heure boo xam ne suñ fi génnee dañ leen agressé mais c'est ce qui se passe wala su une manifestation amee suñ ko autorisé wul si lañ leen gis ñu yor tous tous les moyens taxaw si yenn artère, yi. Mm. je sais pas pour faire peur à cette population wala yeneen ak yeneen. Mm. regarde ce qui se passe actuellement Dakar fépp foo dem si point yoo mënti mënti dem da ngay gis encore une fois que tey jii nii y a les forces de l'ordre mm. et pourtant cette population on est en train de parler d'insécurité donc je pense que tey jii notre force nos forces de défense et de sécurité dañ leen war a déployer sur des points yoo xam ne vraiment dina permettre aujourd'hui askan bi nga xam ne euh, ñi ngi ci biir réew mi ñu xam ne que kat ñii nii ñi fi teg. ñi ngi assurer li nga xam ne moo mooy seen sécurité ñi ngi gis ne que am na ay caméra yoo xam ne ñi ngi leen di installé hmm. un peu partout hmm. mais lan lay jëriñ mais yarax bi rek xam naa suñ jëloon dispositif yi si saa yoo ne loo mën a déterminer exactement ñooñ fan lañ aw euh, ñooñu ñooñu heure li nga xam ne moo di wala comme sax ñu jàpp si benn wala comme sax ñu am si piste euh, kenn koo xam ni itam euh, c'est cette personne yi nga xam ni itam ñu attaqué woon li nga xam ne que moo di bus bi et que je pense que yoyep ay euh, défis yi nga xamni tam ñi ci dal xaar bu baax ba baax suñu ay forces de l'ordre jël woon sax li nga xamni que modi enquête je pense que euh, suñu euh, outillé won ci ay li nga xamni que modi ay matériel donc on aurait dû traquer li nga xamni que modi di ces sept personnes yi nga xam ne itam ñoo daal di takk seen ay kagul duggoon ci bobu di nga xamni que modi bus mais tamit tay ñi wax ni aussi Mamour jàpp mhm. neen ñaari ñaari terroriste <laughs> fallu yaa ngi reetaan de <laughs> non tax wàllum <laughs> terrorisme fii Sénégal alors tey maa ngi gis tey la ko jiyee naan tey jàpp ne ñaari terroriste non dana waa daal euh, donc ñooñu ñu ngi si réew mi euh, traque des terroristes à le quotidien xam naa dañ leen ko affiché si karam ñu ne jàpp nañ si ñaar euh, par rapport terroristes yi nga xam ni itam ñi leen di traqué instant bi fii Sénégal Fallou, c'est il ne faut pas, je pense que il ne faut pas jouer avec certains faits.

man quand je vois des fois sur YouTube des attaques terroristes dëkk yoy non encore une fois dinañ xam ci état mom lañuy nek on est en train de voir une certaine violence il y a des choses qui se passent actuellement dans ce pays là. Hmm. buñu jëlat encore une fois yeneen mbir diko tek ci kaw askan wi. Hmm. ce peuple est déjà essoufflé ñaata mbir mom leen jël tek ko ci kaw askan wi et pourtant on est dans cette continuité là. Hmm que nos autorités prennent leurs responsabilités, qu'ils veillent à la sécurité des biens et des personnes. Force de l'ordre, il y xamné des ngi qui, gis su soit événement amé wala une manifestation amé nañ leen tout le temps nous xamné que ñi kat askan wi ñom leen hmm. mais sur cette lancée là fallu vraiment euh, ce qui se trame est, c'est dommage qu'on en soit là alors c'est dommage je n'ai dit si biir de li nga xam ne moo situation donc 1 65 numéro baa ngi noonu au 77 138 17 17 après ce fait dañuy daal jàll si kaa ki nga xam ne moo Ousmane Sonko alors ñu waxtaan aussi boobu ba ñu ne sa santé elle est fragile pour le moment et que moom ki nga xam ne moo Ousmane Sonko laataa sax ñu ñëw si révélation yu ngañ dem tur yi nga xam tam wax na mu nekk ay révélation yu yu diis yu sax euh, diis a mais quand même ki nga xam ne moo Ousmane Sonko ñu ne son état de santé reste toujours li nga xam ne moo précaire et que euh, sànq doon naa ak serignam que ni Ousmane Sonko dafa am des fois euh, justement ab asthme bo xamni tam daf koy danel tout le temps donc euh, ki n'a xam ne que Sonko peut-être war ko mën a mu gisante ak li nga xam que moo son médecin yow tey dégg naa tey sax afan diko casque ni bu ko ken la kudul li nga xam que moo euh, médecin wam donc état Ousmane Sonko son bi ni ñu bari daan nay jàpp nii moom doon na sax jàmmat. Hmm,